kii mooy Serigne du Gaynde borom kéemaan ñaankatu yàlla bu mag bangook doomi kër Sambaraqi Jóobeen la di fekki ay taalibeem fu nekk ci àdduna bi ñépp ko xam ci résultat ci wàllu ñaan Serigne Modou Gaynde borom kemaan doomi kër Sambaraqi Jóobeen bi ca diwaanu Saalum moo leen indil ay produits yu bees tàq yu jëm ci wàllu ngóora lu xeetoog éjaculation précoce lu jëm ci wàllu jigéen bu taxaw wala boog jigéen bu mënagul am doom ak yeneen xeet yu ni mel Serigne Modou saafara gi mi ngi tudd xam ak Saalum gi gu yéeme ba àgg ci lool xam ak saalum gi domi kër sa bi moo leen ko indil ku ci yàlla dimbali nag ba nga jot ci sa aajo faju na ci saasi yamul foofu de Serigne Modou gayde borom kéemaan domi kër sa bi amna na sangat woo xamante ne dafa jëm ci wàllu ubbeekaay moo xam nga bëgg bayree wala bokk nga yittewoo tukki mu dëgër lool nga déposé say kayit bëgg cee jot ci ni mu gën a Serigne bi daf la koy defal yow mi nekk bitim réew bëgg am carte séjour mbaa nga yittewoo green card résident France wala nga bëgg British passport fenn rek laa lay yabal jokkool ak doomi sàmbaraki jobeen bi saalum saalum bu mag bi ki nga xam ne bu coow li baree du moom waaye bu résultat yi baree moom la nee naa ko sëriñ bi Sénégal dala laa yittewoo boo tukkee tee ngalawaay bu fa yàgg ah mbokk yi mbir maa ngook li nëbbu woon feeñal naa ko bu la dem bi yombe gaawal gaaw fekki ko ca jiwaanu saalum ca kër sàmbaraki jóbeen bu la dem bi yombul nag mën nga jokkoo moom ci numéro yii ma lay bëgg a jox 78 81 wala nga woo ko ci 77 085 49 91 cey doomi kër Samba Rakki Njoobeen bi cey Serigne Modou Gaynde borom Kéemaan Kéemaan la daal mbokk Ceeskaay pare À c'est la grande vente privée organisée par Thiès Business Events Kanyale Amnak du 6 au 10 mars 2024 Fumi ame, chambre de commerce Boutiès, près du café du Rail vente privée Boboulé, lan lay marché Ramadan Pâques Korité a qui superbe promo yo xamanteni ñoo leen fay xaar et marchandise de qualité lii moom bu ko kenn raté su ngeen bëgg am nag ay information yu leer woote ci numéro 77 240 44 63 wala 77 514 25 28 jiit leen teel nii ci suba gi nii. mel ni ay xorondom yeggal ci loolu rek réew nga nag. waaw man la mais soo ba léegi loolu def nelaw rek. loolu daal ba da ngaa feebar. yaa booy seen feebaruma de. ma laajte yu da ngay daal sonn rek ma jëm man la mi ngi nelaw. lay def damaa nelaw bi dara. moo demee ba jàppanteeg ay nelaw te man xam nga ni. soneri message sax dama yé té ah. bu ma dotu mu mun nelaw ar do top ci sama nopi, mbépp mbépp mbépp wax ju amul bop amul genn ba mu lèr gënné fofu dugg ci umu dafa kenn fal mom mu gënné won ma sax mom ko gënal mom tamit mayuma jam ndax wax ju ni fat ki nek Aïcha sañuma dem fofu di tooñ ah. ah lii de mooy amoo jàmm benn yoon ci sa biir néegu sëy hmm. yaa koy wutal sa bopp nag jàmm jooju yaa koy wutal sa bopp faal ah, xam nga nag lan laa bëgg Mamadou Lamine nga dugg sangu ci te summil ma sa yére yi yàgg ci sa yaram bi saf na sàpp ci sa yaram bi dégg nga li ma la wax li wax dëgg la jugal nga summi sa yére yii sangu ba set mudu tuti nit sax ko de dim ko defal li man na jommi mina jaax na rek ñom ñep buñ la téré neeg bi nga dugg ci neegu fat ki ne wala ay sa amul loolu de sa gañu li mo toñ ci solution bi kay lenn la gis nga ardo mi man ma juk ci mom duma ma nangu nak mu terroriser sama sama dom ji ci bi kërëm gi duma ko nangu de nga yeex nak il faut ma yëngu nag ñu xam ne yëngu maa ngi ci biir kër a ak ñi ku ne may un ñu jël cent. nopp gi dafa ëpp torop. Ah. bu yënguwul rek ma yëngu man. Ah. xam nga ma man man kay man dama dara. bii man ma ko bàyyi mu seet. Ah, kay ah kii boo rek ma yëngu. kenn dama ko reyal ba léegi yëpp seen jëkkër ba. danga naan kenn duñu ko reyal. ma ngoo kon. waaw kay maasal noonu gi. yëngul mbaa ma yëngu. man dañu jaaxal nañu. ñoo xam ne kon ay ñoole. wax rek jigéen day sëy sëy bu rafet ah di naxtaan sa dëkk di ko dox café di ko dox soow te bañ ko coow waaye ya, wet wet wet rek nu ay seko da ngay seet loolu rek mënoon nga maa woo man sa bàjj ma defaral la bu nu toogul sa place seen place ma toogee place bi. bu dama jom fi toog man moom. bàyyi ma yëg ci kaw sangu ji. sama xal jeex na waaye bu soobee sawul fii baa koy lijjanti jaa moom lañu ko ko may. do lijjanti dara. bii moom ma ko bàyyi noonu ñu ñu ñëwee sama sama doom duggoon te du ko def. yaa ngi eh. raawul dinaa ko lijjanti. maa koy maa maa koy faj. Hmm. maa koy faj moos. maa yéeg ci kaw sangu wàccaan. dama ta ñëw. dama sangu ta ñëw. dama ta ñëw. lii moom dina rek la ci nii màcc naa bu ko sa yaay rek la wu man mi di sa bàjjan ma rek la ndax du ma la rayal. xool xale bi ni mu mel léegi. waaw numéro bu baax baa ngi nii Serigne faj lépp. tëlewuma dara waaw wax ma sa soxla yëpp rek yow mhm. mhm. waa baax na léegi nag bala ñoo sori man junni laay seete waa ci numéro bi nga koy envoyé te nga te nga vocal ma sa yaay ak sa tur baax na maa ngi koy xaar waat. kaw. ma na. waaw baax na gis naa ko léegi danga may envoyé sa turu yaay ak sa acceptul eu, wow, acceptul, sătul acceptul ei. Am un problem. Nu vă godam să. Alo. waaye yow say mbir dinaa la wax li dox sa diggante ak sa bànneexu àdduna am na màggetum tubaab mu tëx nekk ci biir paxam di gas looloo tax sa jamono neexul sa mbir lëj na benn tegtal laa lay jox nga def ko na nga wut xobi dem nga baxal ko boo xëyee nga nga naan ci bala ngaa tëdd nga diwu ci incha allahu yàlla dina faj sa nga soxla soxlawaat rek woo ma jërëjëf mais <laughs> yow yow yaay fi dëgg dëgg dëgg dëgg hmm. wante bi si dépp sang néew laa ca xam sang néew moom la ni sangee néew. dañ koy fajoo tamit xam nga ni kii ñëw ci man pour ma faj ko moom rek néew la fi mu toll nii daa dee di dox mort vivant yooyu. waaw yow rey nga ko. Hmm. ndax ci kim dal baaxul. yow kañ nga daan seet kañ nga nekk sëriñ. musuma koo doon musuma doon sëriñ. kon lu la ci dugal ne. mais taawon bi moo tollu foo xam ne comme ñëpp rakkaaju dañ fi mu ne nii koo ci xool mbiram ci sëriñ la ko bëgg a yóbbu. ma doon sëriñ bi toog recevoir leen lu waaye indi ma ne ko daneex wax la waxe picc xam nga ne kii fi mu toll nii boo nee mi ngi wër ay xobi siddi mais kaaw ba ba dara du leen lu la ci fekk lu ma ciy fekk man dama dem fekk kenn fii laa toog bu naree métti ma changé numéro nag wax nga dëgg ndax nit mënoo hmm. koo nax te xamul yum bëgg waaw te xale yépp seen bopp yépp sëriñ ci nekk ñoom pour ñoom seen àdduna bi yépp sëriñ koy defar te fii ñi fi mënul ñoo ëpp ñu mën foofu. te xam nga li ci gën a neex di dox ci xel mi ma ko ni màggetuñ tubaab mu tëx nekk ci paxam di gas da daan lii lum tool loolu da lay dof ay loolu ay wax la. wax la ci biir i wax. yaa ngi wala utal ay client. utal ma sagaa yi indi leen. daa <laughs> la boole nit ñi may tëj di la tëj. Ah. yii baax ma. yaa naa ma jaaxal nga ma. yammal ci kii yow xam nga lu la jaaxal. def ba kii. yow lu la jaaxal. Hmm. sa ñeenti soxna yi ci kër gi ñoo la jaaxal mais du man mii yow lu ma def xam nga ko. chargeur nga bàyyi ko jox ma sama chargeur loolu laa bëgg yow sa problème yow Mama Lamine chargeur sax mënoo ko jënd sama téléphone baa ngi ne vide à cause de yow yow nii mbaa sa jàmm la yowee eh. fii yow dongo yaa fi sonn yaa fi fàtte ardo yow da dof wala dangay ngay dof doflu wala yow nga fàtte leen fii néegu jeeg la boo duggoon fekk ma def taatu neen wala ma nekk ci sama bopp loo may wax indi woo ma fii ak yow rek sama tànk du dugg fii ci néeg bi est yaa ngi may dégg lii moom ma fi indi mais du yàfu yow la mi nag yow yaa ma tooñ yow mi takk xale bu ndaw bu fettagul ci nen ah nga dem jël caga bu perte bi nga xamante ne dafa retraité indil ma ko ci sama kaw yow kenn ñu ma yow mi yaa te gis nga lii su ma la ko baalul billahi du baax ci yow yowee li dagg sa xol mooy xam ngeen ne Mamadou ma man mii lay topp ñaar caga mooy xam mu cagam yaa ngi nii cagatu avorté ba mënatoo jur doom ci kër gii kon ak moromu cagaam gis nga yalla dafa def ben affaire gis nga nit ki loolu lepp la ñu fay la ko nga mer rek day fekk la nga lepp dafa baxu <laughs> waaw man damay sa nawle bay lepp lante tek yow gennal ndayu nit bi man loolu la am ci lu may wax ak yow gennu ma ndayu nit yow yaay ki genn mo ne da ngay yow xam nga eh, da eh, eh, ngay morom eh jabaate trop. ñoom <laughs> dafa def ni ndeysaan dama laa nawloowul gis nga yow bàyyi naa la ni la ñi di waxal. ci su ma ko bàyyee. Eh, eh, yow eh eh eh. waxul dëgg man buri dinaa la wax dëgg est-ce que yaa ngi may dégg ardo lakkale nga ardo soof nga mën ngaa tooñ sa jëkkër ayewul ci yow lan nga wut sa néeg wujju yow mënoo bàyyi tooñ ah buñ la waxee ngay lewatal kanam di mel nawe Badiane sama téléphone dafa vide mooma Lamine àbbuma sa message yi sama téléphone vide aw ma droit dem njëkk ji sa message amoo ci droit nga woo ko téléphone Ardo nga woo ko téléphone ah loolu ci néegu jàmbur te ayewoo. yaa tooñ leen dégg. yéen xam nga lan ngeen war a def. ngeen tal te teey. mama da coowal ci kër gi xanaa nekkoo fi hmm. mu coowal bi muy xew maa ngi tëdd di nelaw waaye coowal de moo ma yee. moo ma ma newoo maa ngi fi de man de maa ngi doon xool sax ba xam yow di nga génn àtte àtte <laughs> kon de ma matadi man mi ma génn génn lan àtte ñaari ponkal yu xeex xalaatuma ko weesu nu ñu réew xalaatuma lool waaye ardo ardo tamit daal ardo mii tamit osé na de osé na na am na fit ndax am fit weesuwul dem ba ci dugg néeg dem bay dugg néegu jàmbur waaye ay la fay fekk ay nga xam daa mat bakaare <laughs> loolu de am na waaye coow li coow li Mamadou Lamine ngeen réglé te gëm yàlla yéen lakkale ngeen de te soof ngeen it yéen xanaa politique sax dëpp na ay paan ay yéen bay leen di suñu jàmm man de suñu kër gi xaw ma lu muy ndurool yow bàjjan yaa war a arrêté waaw yow ku wax ak Aïssa rek nga solal ko mbu avocat taxaw yow kenn du tudd Aïssa ci kër gi. eh tëjal sa eh man nga tecc sa gémmiñ man duma wax nga ci tek bat eh, su may wax dangay noppi man solaluma kenn régler. rent guddi rent man eh bul di ko wax ko. gis nga yow moom yaa tooy Aïcha ba jéggi ko ay yéen may leen sama kër gi jàmm sama kër gi mi ngi mel ni Iran Irak coow guddi coow bëccëg coow takku euh, saan te yee ñaar dong la nag te yaa ko tooñ. yaa tooñ ba jéggi tooñ li nga ma ne ay këyitam mu nga dalal xel. na nga ko la li ma xam. na lakk na di kër boo ni ki mu fee am jàmm yéen lii ba jàmm la yee. goor ñi sax dañoo nangootu la takk ñeenti jabar ndax ñii ñeenti jabar kenn bëggatu ko amee ngeen kër yi koñ bi amee ngeen yéen rek la su bokkumalee yéen a lakkale ba ca man de jàppoon naa ni sax Mamadou Lamine dina génn dem di defali àddu ndax Mamadou Lamine sañ na lu raw loolu Mamadou Lamine mat xawma kañ lay mat kilifa mat jaaxal na en tout cas de moom xam ne aar ci la tout cas moom ardo moom dina am bis boo xam ne du ko nettali kenn ci àddina la dem rek ah, loolu di leen surtout Aïcha mi Aïcha mi nga xam daa capable coupable du ko may dara nag teg ci criminel <laughs> ma ne ko teg ci criminel ma di damaa joo mi waaye moo dajale kay ñeenti jabaram kay waaye di yow mi sër mm. war ngaa wax moom yow mi aaw buur këram nag. ah yow mii li nga am ci Mamadou Lamine dama ko am ci Mamadou Lamine yow nga am ci ah, Mamadou Lamine ñaari boor. bu ma dugal man. ah ma dugal laa wax. di sëy ci kër gi boole koog la di njëkkee ci kër gi li nga ci am kat aw ma ko ci. yow ngay yaay di lépp yow yaay jabar nga. aawa yaay da ngaa fàtte aawa yaay. waaw ko aawa baax na. ah moo lemin yow bu weer bu sore rek nga soppi te yéen ñi nga xam yéen ñu war a fay yéen bu ngeen jaaxle yéen ñun ñi ngeen war a fay xam fu ñu jëm ak ni weer yu soree nii ñu bàyyi ci xel waay naa de na ngeen def dama ni woon comme man naa la ko wax bu dee génnoo tey wala sax bu dee da ngay génn bu dee mën nga koo fomm nga may ma rek ndax daa am lu ma war a doxee ma ne woon naa la ko wax balaa nga may laajte waaw ma ma génn mën naa la tàggoo rek dégg nga. yow <sighs> ma sama caabi bala ngaa génn. caabi nga oto bi. yow kalaal kalaal. allo. waaw yow lu baa jàmm la. nga ni lan lii kañ la ko def do ki coupé urgence bu rëy xoolal dimbali ma rek may ma dafa am lu xew tegal sama caabi sama loxo lii soogu jagartaa la de xoolal sama oto du ambulance jox ma sama caabi moo ne ngeen sa oto du ambulance déedéet tegal fii sama caabi te defal ndànk moo Lamine lii mun boo gaañoon fu ñu la yéegal du sa oto waaye léegi bu sa yaay dammoon nag waaw mën ngaa boo xëyoon sa jabar yëpp lakk benn lakk-lakk incendie ku bu waa kër gi ah caab mën nga ma jox sama caabi wala mënoo ko xam nga ñu jox la sa caabi ki nga xam soogu jakarta la dégg naa bopp beeg ñaari tànk yëpp dañ na nga tànk yëpp tàqalikoo dama indi sama dégg naa daal incendie boobu na la daloon rek mën nañu jël am. bu xamoon ni ma ko jéppee day teg xel moom. waaw moo ko jàmbur. waaw yaa ngi toog. xëy toog ah ni nga def neex na ma ci tàkkusaan bi. gis nga oyofal ko eh, kontaan naa ci yow yaa ngi jonga ba yàqu. waaye bàyyi naa ko yéen xale yi man damaa jëm mag léegi. ñàkk ndaw <laughs> dangaa fàtte classe mooy aar dox suñ leen mu sant dañ naan saw xanaa xam man may xale bu am classe bi waaw xale bu jongoma bi xale bu mën sañsa bi xale bu fresh bi waaw ni ngay classe man mii la ñuy wax man aar dox sama muy yow jour gaa ngay daanu xam na wat ci lool wax nga dëgg nag waaye yow de li nga def am classe bu ci génnee dara desatu ci doo dugg sa néeg wujj mu bëgg laa nopp nga tàllal ba caaka iya, jaay yow yaa amul part yaa amul place gis nga nag loolu bi xolal da ngay xaar yow classe zéro wala sa xel bu moom kenn xamul li nga sol lan la ma ci déer bi la ñawal de la laa fauché Fatou Kiné amul Fatou Kiné dafa neex. xam nga lan laa gën a bañ ci àdduna mag bu perte ñàkk classe seytaane ba pare ne déjji ci kër gi te guy. mooy àdduna fu ma jëm maa ni déjji déjjaaral. yaa yaay nag ku dem bàyyi ma fi ku ñëw it fekk ma fi. yaa yaay de ndax bu ñu la demal foo jëm. ma ne beneen bi ci des mooy. bàyyi naa la sa moromu jéeg bi nga xamante naru na laa nokk ba nga rey. ah waxal leneen man aku dangay waxal de. man mi xaritu jëkkëram man ki jëkkëram bëgg man ngay waxal man xam nga ni kii benn jëkk yow ma may noo ko balaa may dee mën a xaritu jëkkëram yaa tardé yow sa jëkkër bëggu la dalaa tegal ñeneen ñaar sa kaw da ngaa sa jëkkër bëggu la yow mi sa jëkkër jël ñett teg ko sa kaw